jubal. jubbanti jubbanti. <laughs> noonu la ko waxee léegi <laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum sénégalais ak sénégalais yi di nuyu sunu mbokk yi nekk ci diaspora yi di jëlaat nuyoo di ko teg ci loxo président son excellence président basiru Diomaye Diakhar Faye di nuyu aussi tam PM aussi tam ñu ngi koy nuyu waaw di nuyu tamit euh, le présentateur hein di ñaan non violence suma doomu ndey depuis 2009 loolu du tey donc euh, di ñaanal Sénégal it yàlla na yàlla def jàmm. te eh, bul fàtte mbéngeen bi de yow amoon nga benn benn benn supérieur benn patron boo wax ne mbéng la sant. waaw su ma su ma <laughs> dama koy dimbale rek. waaw su ma dédicacé mais yow xam nga ne. mooy loolu lu ne ci man moo ko def ci man ñu koy wax Latir Mbeng nekk Wakaam. ndeysaan euh, mu nekk euh, donc nit ku am jom am fulla am fayda. bëgg aussi Sénégal bëgg Dakar Dem Dikk jëm ca kanam aussi nekk ci liggéeyu pneumatique depuis Sotrac ba suñu joon yàlla tey donc lu nekk ci man yëpp moo koy euh, dédicacé aussi tamit muy suñu kilifa gi suñu directeur muy Latir Mbengue maa ngi koy nuyu bu baax. jërëjëf euh, kon nag euh, waxtaan baa ngi noonu tey hivernage. pneumatique la ñuy waxtaanee ñi déggul français comme classe président ñaa bi ma wax leen ne leen ñu ngi si nawet. Mm-hmm. bu ñu waxee nawet. xel yëpp day dem si ay pono. waaw ndax xam ngeen ne euh, euh, soo su fekkee ne yaa ngi toll si période nawet. bokkul ak période noor. parce que pono bi daan daw si noor bi. su duggee si nawet am na lu bëri loo xamee ni euh, da siy changé. mooy ko ndox bu laalee pono rek. à tout moment foofu ngay xamee ne pono bi lu si ëpp da lay wan ne la dafa varier wala lu si ëpp day gondale wala lu si bëgg lu si ëpp dalay indil ay jafe-jafe yoo xamee ni tey ndox ma moo tax kon looloo tax nit ñi bu nawet ñëwee ñu changé pneu yi waaye laata loolu xam naa ne incha allah bu soobee yàlla euh, sëñ bi dina si dikkat bu baax maam Ibrahima Guèye euh, bu ko defee mu leeralal ñu bu baax a baax a baax box métier pneumatique mm-hmm. ak lan moo waral euh, nit ki bu nawet jotee mu changé pneu ak lan mooy tax oto di daw ba si yàgg pono bi ne mbéll mhm. wala lan mooy tax oto bi tëdd euh, gaare mhm. conducteur bi wala chauffeur bi yeew gis pono bi plat mhm. wala lan moo tax oto daw ba si yàgg da ngay gis ne euh, da ngay jekki-jekki rek dégg pono bi di wëlis waaw air ba di génn yooyu yëpp c'est des choses yoo xamee daal euh, c'est à à à revoir ñu xoolaat ko bu baax a baax bu ko defee ñii nga xam ne dañoo yor oto wala nga yor avion sax ah euh, di ko dawal war ngaa saytu bu baax a baax a baax li nga xam ne mooy pono bi moo tax foofu laay jaare ma leen ni bëggee bu baax bàyyi leen xel li nga xam ne nii tey moom mooy 14 euh, si li nga xam ne ni moom la ñuy waxtaane lépp njariñ la euh, maam Ibrahima Gueye lu waral nga dugg si mbirum pono te gisoon fi yeneen métier yi mm-hmm. yàlla dafa dogal métier pono bi bi may nekk xale laa ci nekk depuis Sotrac donc suma papa moo liggéey Sotrac bi Sotrac euh, amee jafe-jafe ci diggante bi après c'est Dakar dem dikk tijji suma papa dugal ma Dakar dem dikk donc métier bi ma gën ko jànge foofu biir Dakar dem dikk après si laa génn tamit def formation bi euh, à Mbour bi ma ko defee aussi euh, macha allah yàlla suturaal ma ci ba niñ ma jëlee Dakar dem dikk. Mm-hmm. donc may wax euh, sénégalais yeeg sénégalais yi rek ñu fagaru ñu fagaru fagaru bi mooy que ni pneu chaque jour que Dieu fait da nga rawatina nag nawet bi ñu toll nawet bi nag pneu yi ñëw Sénégal nag qu'on se dise la vérité loolu dama ci alerté. Euh, son excellence non non dañuy ñëw si le pas jour euh, nit ki dafa war a vérifier li nga xam ne muy pneu mhm. mais pourquoi mu war a nekk chaque jour chaque jour que jëf parce que pneu mu bu dee tubeless la tubeless bu amee air mën na daw fii ba Touba bu bënnee bu amee air mën na daw fii ba tuubaa mais bu taxawee rek day wàcc bu dee tubeless mais bu dee chambraille nag bu xësee ba éclate c'est fini yow foofu ngay taxaw rek ñu changé la ko kon pneu euh, tubeless